voilà tey ñi ngi fii ci Ngor diggante Ngor ak euh, Almadi fa seene ñëw seet si waa Ngor seen gis-gis ci li nga xamante ne am nañ ko ci annulation bi nga xamante ne annulé nañ ko manifestation bi waroon am tey ca waa Yewwi doon ko doon ko def ak li nga xamante ne mooy kasoro euh, li nga xamante ne suba euh, pro Sonko doo ko waxaat pour nu def ko vingt heures ba vingt heures et demi tey nit toogoo seg benn kenn koo xamante ne ci Ngor la dëkk fa seene ci waxtaan ak moom. non du question am lu nu kilifa yi bu la ñaanee da ngay maye comme comme tabaski ji mu ngi jub sa jaaykati xar yi ñu ne xar yi carrément bu génnee day jaxasoo ñu ñaan leen ñu ne nañu may ñu wax xar yi la neen parce que proposition yi bu ñu jaxasoo day am mais du question ragal waxtaan ñaanan ba jàmm am moo gën mais pas man gisuma fi ñi man gisuma fi ragal li ay dem bëj wax loolu la parce que ñun senegal bu Sénégal fu mu mettee ñu ne na kilifa diine yi ñaan nañu wax bon nag bu dara amagul bu ñu kilifa yi ñaanee nañ leen may ñëpp a ngi ñaan ñëpp a ngi Sénégal defe na day tàkk am na loo xam ne war na jox senegal exemple mooy Sénégal bi Abdou Diouf du jóge 2000 addina wépp dañ ne woon Sénégal day takk ñëpp génne seeni doom yóbbu kilifa diine yi ñaan jàmm am fi ñun senegal dañu am lu kenn amul yàllaa nu ko baaxee dañu gëm loolu ku mayewul nag kenn du la may. ndax nekk laa xamante ne bañ ko bañ leen ko arrêté rek euh, pour man da xaw a jaadu. parce que jamono gi dafa métti ba xamante ne euh, population bi bu ñu fi génnee rek mën na indi bi yeneen problème yoo xamante ne parce que si nekk mu ngi waajal lu mu war a yóbbu këram kon bañ leen ko liiwee rek war nañu mën a nangu mu démarrer xel waaw. effectivement donc ñoom décision bi ñu jël décision bu charge la waaw ñu ngi leen di remercier si décision bi nga jël bi ñu jël ndaxte daanaka euh, jàmm la ñu mën a tabaxare am réew. waaye si démocratie itamit la ñu mën a tabaxee am réew te boo xoolee manifestation yi fi am yi ci ëpp ak caay-caay daf ciy rax waaw ak caay-caay daf ciy rax bu baax a baax di nga gis ñoo xamante ne moom dañuy ras dem waaw dañuy rax ci biir gars yi nga yaakaar ne donc ñoom dafa am lu ñuy revendiquer fekk ne seen mbiri bopp moo leen yitteel waaw donc nag loolu bu amee ñoom ñu jël décision bu mel ni ah ñun en tant que ñun moom dañ ciy kontaan bu baax a baax. waaw ñun moom dañuy bëgg ci décision bi nga xamante ne jël nañ ko ndaxte tey manifestation boobu amoon conséquence dafa bari waaw conséquences dafa bari ndaxte ay blessures mën na ci am ay moor mën na ci am ay saccage mën na ci am surtout nag période bi ñu toll ñun nag période bu sensible déjà gars yi problème financier dañu ko am ñi nga xamante ne dañu dañu ñafe durant toute une année wala 6 mois wala trois mois investir ci ay xar benn journée mën nañ leen yàqal seen invertissement boobu loolu nag dafa laaj ay stratégie yoo xamante ne stratégie yu sage la yoo xamante ne da ngay calculer les tenants et les aboutissants ba nga xamante ne yow doo doo xool ne dafa am lu leen métti rek ngeen koy taxaw mais da ngeen di xool ñan ngeen mën a lor de retour ñoo xamante ne doo leen mën a dédommager. tey lan ngay wax jeunesse bi nga xamante ne saa su bu manifestation amee ñoom ñooy génn da nga gis nii ñoom. Euh, dañuy dañu génn ngir Sénégal wala da nga gis dañu génn ngir laneen lan nga jàpp ci jeunesse bi nga xamante ni ñooy génn. jeunesse bi comme bañ génnee man pour man bañ génnee rek euh, war nañ ko mën a teg faa xamante ne la leer nañ la parce que am na yoo xamante dañ see profité di si def ay ñaawteef yoo xamante ne war na mën a ñàkk si dëkk bi parce que euh, Sonko Sénégal yi xëccu yi moo ngi réew mi. kon niñ si demee xel rek ñu wàññi violence bi nga xamante ne moo bëri si dëkk bi parce que euh, la nekk ñu fay gis waaw kon nag euh, euh, Sénégal yi si boppam ñoo war a xool ba baax li ñuy def. nga gis annulation bi ndax da nga jàpp ni ñoom dañu teggi seen tànk ragal nguur gi wala nguur gi moo leen ñëwul ndax ñu bëri jàpp na ni Macky dafa ñu ragal waa yeewi askan wi yow tey boo doon def analyse ci loolu ñoom dañu dellu ginnaaw wala ñoom nguur gi moo dellu ginnaaw ci loolu. xam nga jàpp naa ne du ragal sax. Euh, ndaxte am na décision yooyu xamante ne boo ko jëlee Sénégal dafa bëri ay kilifa am na kilifa yu bari yoo xamante ne ci wàllu diine ak ci wàllu aada bu ñu la woowee ñaan la yow nga jaboote ak ñoo xamante ne ci biir ñi nga jaboote secteur informel daf ci bari waaw si biir secteur informel boobu noonu ñoom ñooy dundal ñii ci ëpp ci Sénégal waaw borom table yi tey manifestation bu amoon table yi yi danañ ko lakk waaw ki nga xamante ne moom juróomi dërëm gerte caaf lay jaay. li muy am bariwul taabul gi xamoon nan la def ba dajale ko ba am ko bu manifestation nga am nga xëcc si tali bi taal ainsi de suite ainsi de suite donc ñi ngay yàqal dafa bari te kooku dafa war a dem këram dundal njabootam donc lu mel noonu bu amee ba yenn kilifay yi euh, waxtaan ci ak ñoom ñu nangul leen ko loolu dañ koy nangu waaye itamit euh, li ñu wax xob xobbeeku balaa ngay lakkale waaw dañoo seetaan ba yëg mbir mi yëg sa fii te euh, waruñu woon seetaan ba mbir yi yëg sa fii nii waaw ndaxte kilifa yi dañ ci am responsabilité bu rëy a ndaxte ñoom ci wàllu kër diina boo làmb seeni i famille wala seen i njaboot ñu ngi ci biir yeewi askan wi. non foofu ragal amu fi dañu war a waxtaan ba juboo rek pour man ragal amu fa ko waaw man loogu laa jàpp quoi parce que euh, comme te Macky euh, moo la kilifa gi kon ba leen bañee nañ xaar rek nañ xaar ñu xoolaat beneen système boo xamante ne. war nañ ci mën a génn. manifestation la ci constitution bi da ko maye muy droit ci ñun boo bëggee ñaxtu nga génn nga ñaxtu tey pourquoi ñoom bu ñu bëggee ñaxtu duñ leen accompagner. jox leen ay heure bi jeexee jeex na pourquoi duñ leen nangu loolu quoi. manifester dañ ne droit mais ki fi nekk ñun li passé jaaxaluñu fi lañ fi jaar ku ne gis na ko at yi passé jaar nañu fi man mii wax ak yow si ñu doon rey sama bopp pour Macky Sall la toog laa keneen ak keneen réew mi nag ñoo bu ñu demee ba ne keneen yow la dafa métti su ñun dëgg ah. sunu man coxeuru taxi yi la gérant garage daa métti torop te président amu yërmande su ñun chauffeur yi mun nañu wàññil parce que problème euh, chauffeur yi dafa métti président na ñu gëstuwaat nag xoolaat ñu xam ne réew mi métti na amagu ñuy xar ax laneen ax laneen population bi bañ génnee fi ñu a yem ñu yem fa duñ fa yem mais dal dalu ëpp bu fekkoon dañ leen yem leen fii ñu yem fii loolu ñu xaw a tane waaye mais dañuy dépassé loolu moom problème bi mais yoon la nag ñu bàyyi leen ñu ñaxtu loolu moom dañ ci am droit bu leer nañ nañ nañ kon nag euh, war nañu mën a xoolaat bu baax ni ñoo taxawee tamit. bu ñu bëggee def manifestation li ñuy déployer ci arme ay ay nit bu ñu leen encadré woon ñu def seen journée mu jeex ah mais est-ce que jar na bon ñuy jàkkaarloo ak ñoom di leen di def rapport de force du ko jar tey boo xoolee ñoom bi ñu jëkk organiser. seen meeting donte am na yoo xamante ne kaddu yoo xamante ne nekkul kaddu gu teggunu ci biir am pénc kenn rafetlu ko mais tey loolu ngay taxaw koñ bu nekk nga teg fa ay nit ak oto yoo xamante ne loolu boo encadré woon nii ñu wax li ñuy wax benn jour demi journée mu jeex nit ñi demaat nekk seen jàmm mais bu ñu continuer nii rapport de force bi bu ñu continuer ni liiraam si ñag bi la jëm te nit ñi ñoo ciy ñàkk rek. bu yàlla dogalee moom moo gën yàlla na ko yàlla may mu toog yàlla dogal na moom gënul. yàlla na yàlla may ki gën si Sénégal mais Sénégal ku yaakaar na day tàkk yaay tàkk Sénégal du tàkk mu ko sa soit opposition que ça soit parti au pouvoir Sénégal du mas a tàkk quatre euh, euh, euh, deux mille gënoon a mitti fop ñëpp tëj Sénégal defe na Sénégal day tàkk te tàkkul. confrontation yoo xamante ne dina dem ba foo xamante ne même kilifa yi bu ñu ko bëggee fay dootul mënati fay waaw parce que am na ñoo xamante ne bu ñu demee ba yegg benn niveau bi ah dañuy wax rëccu dana dana wees de. waaw rëccu dana wees parce que gars yi jeunesse bi ni ñu engagé ni am na foo xamante ne bu ñu fa demee dañu gumba tëxlu donc dañoy jar ñoom ñu joxe seen bakken waaw te loolu itamit war nañ ko xoolaat ndaxte Sénégal dafa naqari fi mu nekk nii waaw dafa naqari lépp cher waaw lépp cher xam nga loolu dafa doy waar xar bi fi mu nekk nii boo laalee xar yi dafa cher parce que lu tax dundu xar gi dafa cher waaw secteur boo laal dafa cher façon yokk yooyu kenn xamut ah ci réew moo xamante ne gars yi dañuy taaba taaba rek waaw ñi ñu ñi nekk ci kaw ñoo yërmul ñii ci suuf waaw fa dëgg yàlla dafa doy waar